fédération des périmètres autogérés FPA daal di nar képp ab tournée bi nga xamante ni amal na ko ci juróom-benni zone yi ca commune bu Dagana Bokhol ak Gaya foofee nag la ñu tënkee gi lay dox nemmeeku. président bi Mamadou Diallo delu ci wat nak ci ay jafé jafé yu bari yo xamanteni neméku nañ ko ci union ya nga xamanteni jot nañ leen gën ji mu japp ni la ci gëna fess bokku na ci yéxa tambali bi nga xamanteni la ko waral moom moo jafé jafe ci walu financement. buñu commencé sunu tournée bi ak léegi yépp peut so xolé xoolee zone yu ñu dem yépp ci ay jafé jafé lañ nekk ci campagne contre saison bi passé mu nekk campagne bo xamné ni eh, bu bu bu bu naqadi la. bu nekk campagne boo xam ne lii campagne bu am jafe-jafe bu lool lool surtout mu ngi amee jafe-jafe ci au niveau des producteurs de la vallée du Sénégal Dagana jafe-jafe yu mu am mooy béy nañu eh, c'est vrai mbéy mi tardé na mais béy nañu jël ay bor bor mun mënuñu ko fay mu nekk nag ay jafe-jafe yoo xam ne yu tar am na am na yoo xam ne yi inondation la am na yoo xam ne taw la am na yoo xam ne yi baisse de rendement la am na yoo xam ne yi picc yi la parce que dafa ëmb lépp am ñoo xam ni poste piste de production la am na yoo programme boo xam ne ni aménagement la donc yëpp moo ëmb ci euh, six euh, zones yi ñu dem yëpp parce que soo xoolee jafe-jafe yëpp presque benn la waaw sekk nag dafa am ay rek yu ndaw ndaw yu ci nekk parce que am ñoo xam ne commencé nañu woon teel am ñoo xam ne man mujj nañu commencé loolu yëpp nag soo gisee loolu yëpp nag problème financement la financement la campagne bi lu mu tardé lépp lépp lépp problème financement la su amoon teel rek campagne bi dana mun teel. yeneen ci ay jafe-jafe président Mamadou Diallo xamle ko mu jëm nag ci jafe-jafe machine agricole yi tax récolte yi mënuñu ko amal ca jamono ba mu jotee waaye noonee mu xam ne nag leneen lu jëm ci wàllu aménagement wàllu semence waaye tamit wàllu électricité bi loolu yëpp rek doon lu sonal lool baykat yi tey loolu nag nekk tey gàllankoor wu rëy ci mbay mi. beneen lu ci bokk encore mooy matériel agricole loolu encore bokk na ci encore lu tardel campagne bi am na yoo xam ne ñor nañu teel. mais pour ñu am matériel agricole adapté pour ñu mun góob tool yi may jafe-jafe surtout seeni yi machine seeni yi ñoo yooyu daal moo ñu mun xam ne génne ci jafe-jafe yu bëri yooyu encore ay jafe-jafe beneen yeneen yu ñu rencontré encore mooy problème semence problème semence fu ñu jëm yëpp gars yëpp ñu ngay jooy ci problème semence mu nekk semence boo xam ne di vraiment am na ci ay jafe-jafe parce que bëri na ay riz rouge ci programme ci ci situation yi yeneen yeneen yi encore jafe-jafe yu ñu am mooy cherté électricité yi parce que yu bëri ñu ngi ciy wax yeneen jafe-jafe yi ñuy gis encore mooy problème drainage surtout Dagana Dagana ñu ngi yor problème drainage boo xam ne drainage bu tar la parce que seen station station bi moom moo ëmb euh, bokkal ëmb gaay ëmb même ci ci kanam donc beneen drainage mënu pour drainer loolu yëpp ay jafe-jafe la gis nañ ko ci dans la vallée du fleuve Sénégal. lay jafé jafé tax baykat yi sax jotuñu dem campagne hivernale wayé nak ci ay recommandation président Mamadou Diallo xamlé rek ni situation bi président Macky Sall donc qui kiko mëna décanté muy xamle ni la nga xamante ne mo ca war di ba baykat yi mëna a ci financement yi té mu gëna a teel dana tax li jëm ci walu concession 2024 ñu mën ko songu ca waaye tamit hivernage ba tamit ñu mën ko wat loolu yëpp rek dana bok ci lepp lu yombal walu double culture mu bok rek ci levier bi am solo jëm ci walu souveraineté alimentaire. xol nañu tay président de la République mo mu dek décanté suñu situation ba nga xam ne préparer campagne contre saison 2024 tel ñu dem tel gob tel mun entamer campagne hivernale léegi na lu muy lu ñuy jappalé mu jappalé ñu ci financement bi surtout relation entre union yi ak banque bi.

seen wàll ñoom baykat yi dalal FPA ci tournée bi daal di rafetlu jéego yi mu amal ndax nag xamle nañu ni lii doon ci li nga xamante ni mën nañ ko dundee ci wàllu yaakaar ngir situation bi ñuy dund mën a saafarawu ndax kilifteef gi nga xamante ni FPA wane na ko ngir nag taxawu leen loole nag tax na ñu tàmbalee fàtte sax seen jafe-jafe. loolu yi nag teewul ñu dellu siwaat di xamle ana lan la ñu dund ci wàllu gàllankoor ci mbay mii. Ah, sant yàlla bu baax a baax di kontaan si waa FPA ñi tey gane sinu ñu leen si sant di leen gërëm parce que tamit euh, kilifa nii lay def ak njabootam heure bu tëgee saa dafa war ñëw nemmee ko njabootam xool si yenn jafe-jafe lu nu am tey mu doon seen tànk nu koy rafetlu bu baax a baax. li nu mel moom damay ñaax yeneen kuréel yëpp yëpp bu buñ ko mënee def na def ko parce que tamit nit ki buñ la jiitalee. da ngay bàyyi xel ñi la jital union d'Asset mu toll ci 500 hectares jafé jafé ya bëri bu ci ñëk dem koy dalé ci union bu ñu jité bi union bu toll ci ay 500 hectares nek lu mu neew neew ay 1400 personnes union bi ñu ko joxé depuis 2000 même mën wax depuis 2000 ba fi ñu toll ni lepp lu ñu am union moko défal bopom boppam union dolem bëri wul si lool damay njëkkee problème aménagement bu ñu am bi beneen bu doon beneen particularité muy union d'Asdé dafa nekk union bi nga xam ne bi boo xoolee mooy drainer ba département Podor. ku mel ne CNCA daf lay wax ne la soo amee da ngay fay soo amul da ngay fay te ñun doomu réew mi dañu kon du ñu bëgg euh, président mu gestu SPA mu jàppale leen ñu am moyen ba nga xamee ni yàlla daa ñu mën di taxaw ci suñuy jafe-jafe ndax li ñuy séddale ci réew mi nun ci la ñu bokk ndax jafe-jafe parce li ma wax ci euh, léegi tout dernier moment. mooy dañuy am am am nañu vingt vingt trois ans vingt quatre ans di béy ak ak ak seen am crédit bon suñu amee benn euh, inondation bi nga xamee ni taw moo nu ko defal bon ñu demandé ko mënuñu fay parce que membres yi yóbbu wuñ ko seen kër yóbbu wuñ ko fenn mais jafe-jafe la ma jox la benn fi nekk vingt hectares la la exprimé woon dix hectares yi dafa inondé ñii ñi mënuñu ko fay prochaine année mu ñëw demandé pour moratoire pour mun béy au moins di fay loolu mais daf ma bañal loolu kon état bi nu jàppale nu jàppale SPA

li fi li fi nekk di sunu néew faagaagal nañ ko kon yooyu jafe-jafe la beneen bi comme ni ko waxee suñu aménagement yi aménagement yi màggat nañu war nañ ko defaraat beneen bi mooy courant bi seer na beneen bi mooy assurance assurance bi war nañu changé méthode bi mu xam ne moom lay doxee yooyu yëpp ay jafe-jafe la nga xam ni war na war na war na war na war na egg war na génn egg fa nga xam ni foo la war a egg. union Dagan A dafa regroupé neuf neuf sections villageoises donc yo xamante vraiment no ngi and ak euh, FPA ñuy liggéey liggéey bu rafet ak ay partenaires machallah mu doonoon lu am solo ay programme jaar fi lu mel ay bay dundé donc nous doon ay programme yo xamante programme yu am solo la mu rafetlu ko loon trop donc euh, may ñaan rek bépp union bi nga xamante vraiment yaa ngi ne si région bi nga fexe. jege li nga xamanteni moy FPA parce que njariñ lu mu am bo xolé lu si mel les achats intrants regroupés koku dafa dimbali won vraiment les producteurs té fi nu tollu ni actuellement lolu yop tay ñak nuñ ko té dara waruloo ko luddul ñak euh, union yu ñak jege FPA and nek ben di dañuy bay di perte rek parce que bu dé ci walu ceeb bi intrants yi dafa cher qualité amuñu ko parce que da ngay bay actuellement union d'asse bi ma nek ñi ngi am 050 une personne bu nek 050 bi boko baye ya ngi si am bu beure ba beure 40 sac 45 25 sac yu mi dem crédit euh, banque agricole sac yi ci dess borom machine décortiqueuse bi daf ci jël pourcentage am nga fay ci transport gop bi moom wuñ ko ku ci respecté norme yi dal fay norme yi bo yobbo quatre sacs sa kër bëri ci FPA ni mu ni mu ñëwee tay ndax njabootam lanu mu ñëw di nu nemmeeku nu nu toogee ak fu nu tollu ah lolu am solo la ndax ko am sa njabot da nga lay war di némé ko di len saytu lolu mom moy lo xamni li dina doxal dina tax ñoom ñu am benen yeg yeg ak beneen taxawaay ci sa kanam ceeb ceeb bi ñu bay bi moo nu indil bor ci banque ndax ceeb bi intrant bi cher na semence bi nu mu waroon mel melu ko ba tax rendement bi amul rendement bi barewul intrant yi engrais cher na ba tax na boo ko bay jëlee boo jëlee financement ci banque boo fayee sa bor doo ci génn waaw loolu moo nu indil bor ci ci LBA mu di nag ab tournée bu tax FPA daal saytu bu baax a baax jafe-jafe yi mbay mi di dund naka noone ci juróom-benni zone ya nga xamante ni ñoom la jiite foofee nag daal na fay teg tànk fenn fu ci nekk rek mu xam ana lan moo di situation bi lii nag di benn jéego bu njëkk bi nga xamante ne tax na baykat yi mën a dund ab yaakaar ci mbay mi ak situation bi nga xamante ni moom moo ko gàllankoor daal de safarawu ba faaw.